lan moo wóorul ba pare mën nga ci teg leneen wóoru la dara wax la rek sëriñ bu ko wax ne boo demee maasew ba pare na nga ci teg leneen alluwam sorewul wala kooku moom daaxuma jàng bul xeebal jàmbur sëriñu jàmbur déedéet dama bëgg maye ban sëriñ bu leen naan demal maasew jigéen jigéen na lay maas benn jigéen moom may maas wala xanaa bi muy dem di maas maasew ñoo ko jigéen a may maas yow jigéen du la maase de waxuma loolu de. Ah. mais duma ci boole massage bi ñu ci bi ci rax noonu de massage bi rax dara. dara wóoruñ ñaanu ma ko yàlla de. wóoruñu wóoruñu ko wax léegi léegi man léegi man néew la moom moo ko def de déggalu ko tamit mais aji mii jël kàddu wax Sénégal yëpp déglu wax man lay wax lenn. dama am benn dama am benn xarit l'islam daanu la sax dama benn xarit bi ma fréquenté daf ma ne doomam dafa toog ma wax la lenn de lu leer pour nga comprendre. mu ne dafa ñëw ñëw ci moom nee ko waaw mais papa doo wax nguur gi ñu xool nan la ñuy bàyyi Ousmane Sonko ngoon le lendemain mu ñaar mu ne papa man maa la ko waxoon mais génne naa ci Ousmane sunk mu ne lu tax papa jee ko wax de mu ne lu tax mu ne bi mu taxawee fële gendarmerie il a fait exprès comme manipulateur la jël ñaari loxo yi boot leen si ginnaaw mel na ku ñu monote du du gendarmerie ci rond point bi fii waaw mel na ku ñu monote ñu photo yooyu génne ñu ngi koy monote loolu manipilation la te loolu sénégalais yi yéex nañ ko xam boo demee nag ci assemblée nationale moo fi jëloon kàddu ne chaque député am nga 10 million ndax loolu am na te il est député nous sommes des députés amut mënul génnee benn preuve. da ngeen ko doon wàcc ci xibaar yi ñu wax jamono yooyu mu wax ko ngeen teg ko ci suuf bu ma ne moom dafa ne député bu nekk da ngay am 10 millions loolu la wax te député la moo xam ne ne amul gisul benn député bu am 10 millions député salaire bu gën a kawe 1 trois 300 mille ngay am ñi nekk membre commission ou membre bureau ñoom ñu am plus ça c'est tous les députés amul opposition amul pouvoir l'assemblée elle est nationale assemblée pouvoir moomu ko opposition moomu ko man daal lenn sëriñ bi ko waxoon na dem maase wu loolu laa bëgg nga comprendre neew na mën na sax xëy na tàggoon na ko jigéen la fekkewuma ko mais même su doon jigéen la nee na ko comme bu dee da ngay faju moom moo ko wax de yaa ngi toog yaa ngi déglu même boo toogul ci conférence de presse am mais waxul sëriñ bi néew ko yaa ngi def procès Ousmane Sonko nee nga dañ ko bàyyee yoon waxuma reen non man waxu am am na yoo xam ne dafa leer avant yoon dafay atte mais am na ay kaddu yoo xam ne dañ koy wax loolu loolu moo ko wax du man maa ko wax moom moo ne bi mu feebaree dem na ci sëriñ laaj ko sëriñ sëriñ nee ko bu dee jigéen la mën nga dem maasé bu dee faju ñëwaat mais faju bi dafa rax leneen na faju rek ñëwaat na dem maasé wu rek ñëwaat mais bu dee dafa dem maasé boole ci leneen nag ne boo demee maasé wu ci boole leneen lay wax leen Babacar sëriñ bi lay nax boo demee maasé wu na nga ko ko mënta wax bu dee moom moo ko wax waxul ni sëriñ bi dañu ko raxal wala raxul dañu ko sëriñ bi la tàggoo ba xam jigéen mën na ko bës yooyu boobu débat sax même buñ ci sorewul amul pour Sénégal yi ñu ngi seetaan di xam di àtte au fur et à mesure di xam sans même may toog di expliquer dafa leer ci bopp nit ñi léegi manipulation baa ngi ci biir Adji Sarr mii meilleur interlocuteur la moo moom sujet moo porte plainte du état du détournement deniers publics du xaalis état du leneen dara yóbbu ko euh, euh, mu répondre gendarme national lu dul porte plainte d'une d'une sénégalaise comme toi comme man comme moom moo porte plainte affaire du privé la moo jëlaat kàddu wax ba ñëpp dégg am na kàddu yoo xam ne du si jaaraat ndax dama respecté Sénégalais yi góor ak jigéen respecté diini Sénégal yépp loolu moom na jël tontam tontu Adji Sarr tournée yi muy def nii encore di dem dans les hommes politiques di def yenn yi na ngir yàlla ne leeral Sénégalais yi li Adji Sarr wax interpellé wu la yow interpellé wu ma man moom la interpellé Ousmane Sonko li muy wax nii wax ju leer na mais jëf ji li koy leeral justice la. Ousmane Sonko tamit wax na lu leer. lan lan la wax il n'est pas obligé. ah pourquoi il n'est pas obligé il n'est bu obligé. buñ la jiiñee dara buñ la sa dossier baa ngi justice te ki la ko ki la ko jiiñ daf laa porter plainte dossier baa ngi justice nee na boo jëlee boo jëlee kaamil alxuraan newuñu la kaamil bu ñu dagg tuuti wala daaliin newuñu la kaamil bu ñu jëlee benn benn papier boo xam ne kaamil bi day manqué newuñu la kaamil boo xam ne ne. foo yi. no xam nga xam nga couverture bi rek moo am bind alxuraan nag kaamil te dara ma xam nga tax na def loolu. xam nga lu tax nga war a bàyyi parce a bàyyi affaire kaamil parce que yow fii la la yaa aw invité eh, ina anzal naaw fii la cadre nga doon wax. waaw xam nga yow affaire sama allo soriwul waaw donc da nga ciy maandu. sama allo soriwul. Ah. man moo tax nag may interpeller ñi nga xam ne seen allo eh, sori na ñu ci bàyyi xel parce que moom manipulateur la mën na indi kaamil alxuraan boo xam ne ñett fooy ci nekk sax muy indi kaamil alxuraan taxu ne waat na ñun ñi di di di seen mbokk journaliste yi di génnee Ousmane Sonko waat na waat na waat na te fekk d'abord dafa dagg wala daali ni bi nekkatul kaamil wala te fekk am na foo yu ñu ci rocc yoo xam ne nekkatul kaamil mu waat bu koy def bu mu indaale sëriñam boobu aussi bu ko yagal mu dem maasew nañu indil beneen sëriñ pas sëriñam boobu bi ko yabal mu dem maasew gëmuñu loolu lu ñu gëm mooy sëriñ boo xam ne Sénégal la ko tànn mu toog xool kaamil bi mot na mu jël kaamil bi waat bu waatee est-ce que est-ce jóge ci salon de boobu yow anaajal nga léegi ci yow mi nga xam ne tamit da ngay dem di bëslu mbaa bàyyi nga ko. non non non man newuma la damay dem di bëslu nag. Hmm. léegi waxuma la ko de man daal salon de marchage bii. mooy bës mooy bëslu rek. salon de massage. Hmm. jigéen maas la nga bëgg ci maasaale leneen yàlla ma yàlla musal ci loolu. léegi dégg nañ ku far ci yéen euh, Yankhoba Diattara ministre bokk ci réew mi parti Idrissa Seck. waay wax na ni. Euh, coow lii daa day tere Ousmane Sonko nekk candidat élection présidentielle 2024 dafa jàpp ni xëy na dañ koy teg daan xañ ko mu présenté wu yow tamit loolu nga gëm. ma loolu man mënu ko wax parce que xaw ma lu justice di di valider man nee naa la am na yoo xam ne kàddu yoo xam ne mbirum politique mën naa ci sori lool ndax moom yàllaa ma ci boole ma koy dox di ko def te engagement la yor ci Macky Sall mais lépp lu justice di doxal du ma juriste si jànguma xam naa ne nag ministre de la justice bu fi nee. c'est un juriste plein c'est un avocat de haut niveau magistrat Sénégal yi c'est des intellects de haut niveau. ministre bi nga toj toj yu mu def de. dama lay wax rek mais du tere am na njàng am na niveau. am na njàng am na niveau du morom yu bëri fii. magis suñu magistrat yii nii justice bii suñu magistrat yi fi nekk magistrat de qualité lañ ñi am jàng la procureur de la république macha allah nous avons des gens yoo xam ne am nañu espérance bu doy bokkul ak ñoo xam ne ne. musoo nekk sax adjoint chef de centre bëgg a jiite réew xam nga réew yàllaa koy joxe mais expérience dafa baax ci wàllu état. gis nañ ay réew yu am doole yoo xam ni oui gis nañ ay réew yu am doole yoo xam ni. ay nekk nañ ko président. maa la wax loolu benn jaar-jaar. d'accord na ah. mais xoolal seetaanal expérience ci wàllu état dafay servir lu bëree bëree bëree bëri. yow Sonko bu ñëwee changer système bi yow du la arranger. no pas du ma arranger néew ma la Sonko bu ñëwee changer système di ma arranger wala du ma mais sori na ñëw système d'abord. nous avons un président de la république déjà qui est là te tamit bi ñu demee élection yi. passé troisième la am boo xam troisième la ñëw amoon na ku am deuxième. amoon na ku am deuxième bul fàtte loolu day dem bul ignorer le président Idrissa Seck qui avait vingt six pour cent et quelques kooku du caaxaan te tamit yor situation politique bu rafet maa ngi gërëm waa Thiès yépp ci engagement bi yoon ci Idrissa Seck nit boo engagé wu ci moom da ngay am. lu am na ñu génn ci parti bi bàyyeekoo moom ne la da na ñu génn ci parti bi bàyyeekoo moom da ngay am loyauté ndax li mu fekk Macky Sall. en tout cas waa Thiès bi Idriss diggee ci politique ba tey depuis combien d'années il n'est pas dans le dans le pouvoir mais kan moo moo ko mus a mus a moo ko mus a gagné Thiès wax ma kan ku mu bëreel Thiès daan la loolu mooy wane ne waa Thiès gore nañu lool lool. man du ma waa Thiès milituma waa Thiès mais rafetlu naa seen position ak Idriss ndax nit da ngay déggu engagement politique da ngay dem ba jeex day tàng jër dem ba sedd nga yor sa position bopp Idrissa xëy na amoon na jamono yoo xam ne yàlla mayoon na ko kattan may ko situation def leen gestu lool ñu nekk ay nitu kóllëre fàttewuñ ko ñu xalaat ne bis bu ko yàlla mayee position bu baax dina dellu si ñoom aussi teranga bu mu am bokk ko ak ñoom moo tax nag dama man duma man bokkuma Cees affaire séddoo alalu réew mi ngay wax nii luy seddoo alalu réew mi ah lu mu jëlee ci nguur gi lan mooy nekk bokk ak ñoom ah mais li mu fa def alal réew mi la xanaa waa Thiès bokkuñ ci réew mi loolu nga bëgg a wax yow alal réew mi cees bokkul ci réew mi. lan mooy jël. ma ne alal réew mi jël yëf yi dem bokk ko waa Thiès. indépendance bi ñu doon defar di ko yóbbu dans les années.